waral loolu mooy euh, école polytechnique dañoo ñëw euh, étudiants yi ñëw ni dañuy grève le jeudi 3 ñu ñëw indil ma préavis de grève donc préavis ku ku ko dégg tur bi mooy maanaam damay waaj a dem grève poñ bi moom ma naqari poñ bi moo ma naqari poñ bi moo a naqari ah bi ñu ko jotee ma woo sama directeur des études ma ne ko ah étudiants yi kat indi nañ préavis mu ne man kat jot naa ko may tam ma ne ko léegi yan point la ñuy wax ñu xool muy ñeenti point ma ne ko léegi bu samedi cinq à 10 heures ñu woo leen ñu waxtaan ak mu dem bureau ci guddi gi ñu yónnee ko benn message ay mail ni ko suba vendredi à 8 heures dañuy dem grève donc wëcc ñu benn place boo xam ni mën nañ fa waxtaan ah bi ñu defee loolu ma ne kon baax na ñu constaté ñu def 48 heures renouvelable ñu def 48 heures ma jàppoon ni danañ demander rencontrer directeur pour discuter ñu daal di defuñu ko ma daal di ah kon xëy na dañoo bëgg ma bind ma it ah ma itam ma bind tontu leen poñ bu nekk lañ ci wax ma tontu leen lan moo ci am li ci amul ak li nekk ak liñ def malgré tout ñu defaat 48 heures renouvelable bi ñu demee nag ba ma xam ne affaire bi xamu ko woon xamatuma li ma niru ma ne léegi kon. naa woo kuréel gi nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci njàng ak njàngale ci école bi ñu daje ñu waxtaan kuréel goo xam ne ñoom étudiants yi danañ ci toog ñoom itam ma woo kuréel googu samedi bi passé woo itam responsable lu kudd nga xam ne mooy gérer social restaurant yi ak dëkkuwaayu étudiants yi ma woo ko mu ñëw bokk ci réunion bi bi ñëwee ma wax ni ah étudiants yi kat nee dañu dem grève point bii lañ wax bu njëkk bi nee nañ dafa am étudiant burkina boo xam ni ñun dañ koo jël indi ko ci école bi mu def cycle ingénieur te teguwul ci yoon ah ma won leen ne loolu kat lu ñu wax tegul ñu wax tegul fenn ndaxte étudiant boobu yoon mooy décret bi wax bu gérer polytechnique moo ñu wax ni étudiant bu nekk étranger bu dëkku Sénégal ak ab professionnel mën nañ koo jël mu def cycle ingénieur fii ci école polytechnique waaye balu ñu ko jël nag dossier dañ koy xool te conseil pédagogique mooy wax directeur directeur fixe nombre de places donc ñun ñu def loolu. le trois août conseil pédagogique bi réunir daal di euh, bi ñu réuniree ñu xool ni euh, yan nationalité ñooñu gën a daan jox ay étudiants par le passé ñu xool muy beneen di Togo euh, di Burkina ñu ni léegi nañ réserver trois place pour étudiants yooyu parce que ci réforme bi ñuy soppali gi gouvernement bi def ci enseignement supérieur daf ci am fukki poñ juróom-ñeenteel poñ bi dafa wax ni dañuy fexe ba nit ñi di sawar a jàng ci Sénégal ubbeeku Sénégal jàng ubbeeku ci bitim donc ñun loolu lañ doon jëm a doxal comme amatuñu xaalis pour def ko concours bi ci tëdd réew yooyu ñu ne comme texte yi may nañ ñu jël leen ñu def cycle ingénieur donc ñun loolu la def donc conseil pédagogique nañu réserver trois places pour étudiants ñu réserver trois places léegi bi ñëwee Bénin amuñu dossier Togo yónnewuñu dossier Burkina yónneñu ñaari dossier Gabon yónneñu ñaari dossier mais Gabon xooluñu seen dossier parce que conseil pédagogique waxuloon Gabon ñaari dossier burkinabé ñu jël ko jox ko département génie civil comme étudiants yooyu ñoom nee nañ génie civil lañ bëgg a def département génie civil ñu def seen réunion euh, le 9 octobre daal ni dossiers yi ñu ñaari dossiers yi jël bii la ñuy jël ñu daal di koy choisir donc ngeen xam ni kon étudiant bi ñun procédure yi ñu yoon may fi jaar pour jël ko mu ñëw jàng si bi mu ñëwee jàng si alxames ci suba alxames ci ngoon lañ indi préavis bi ñun ñu wan leen nag ngeen di ngeen dee da ngeen a jóg lii la mooy. ñu ne ñun conseil pédagogique boobu ñun bokkuñu ci woon ñu ne comme conseil pédagogique convoqué woon nañ leen ñëw leen parce que da ngeen nekkoon position stage parce que ñoom bu ñu def quatrième année stage bi c'est obligatoire école bi moo leen di wutal stage ñu signé convention ak Sénélec chaque année Sénélec dañ koy yóbbul ay stagiaires cinq chaque année Sénélec depuis daaw jëlal ñu cinq ingénieurs yu soog génn donc kenn ki ñu génne lettre bi nga xam directeur moo ko bindal mu waroon nekk stage le 3 donc pour administration moom mi ngi le 3. keneen ki labo sol la waroon dem ñu la ko lettre bi le 3 mi ngoon stage donc comme ñoom ñi ngoon stage mais nag aussi du aussi siégé wuñu rek que conseil bi mënul délibérer euh, valablement donc le conseil a délibéré donc ñun ñun li expliqué leen da ngeen nekk ci erreur ñu def pour euh, comment dirais-je euh, suñ mbokki dara përi yi ñuy wax ñun leen ñoom ñoom ak école bi ñoom màggandoo liñ man mooy waxtaan te man dajale naa village bi yëpp waxtaan ak ñoom fii ci autorité ak chef de village ak imam bi yëpp waxtaan ak ñoom pour ñu aider sécurité bi si te li ñu xamul mooy bi fi militaires yi euh, jogee ñetti weer yoo xam ni euh, villageois yi dara pëli ñoom ñoo doon garder di saytu école bi te ba nga fi nekk léegi problème en tout cas mosuma fi dégg histoire boo am entre village daral pël ak étudiants lenn li xëy na dëgg la waruñu leen permettre ñuy dem ba ci seen i douche di fa sangoo te loolu kudd jël na décision jël na matuwaay yoo xam ni loolu dootu amati yeneen nag yi dugg ñu dafa àggul ay poñ yu toj amuñu xaal bu ñu ko defaree ñuy dox am yenn bunt yu bari yu dugg mais vigile fu ñu leen gisee dàq donc loolu lañ ci mën en attendant beneen bi mooy euh, terrain de football bi teneen de football bi fii école bi ak mu nekk bu nawet bi jeexee ñaxum kese lay doon. léegi bu ko defee ñun dañuy jël ay contractuels ñu nettoyer école bi ak ay priorité comme dañuy jàng pédagogie mooy priorité bi donc bu ñu paree priorité yi dañuy avancer léegi programmation bi dafa exécuté ci terrain at nekk nu lay demee dañ leen di ñuy jouer fii football ci carré d'arme bi en attendant ñu defar terrain donc ba léegi même bi ñuy grève sax ngoon bu nekk fii lay ñëw di football donc pour ñu defar léegi ñu ñu ngi loolu ñu ngi ci beneen mooy piscine piscine bi dafa panne depuis at ça fait lu mat 6 mois ma nekk ci. di négocier ak ministère de l'enseignement supérieur pour ñu am xaalis bu pour defaraat campus bi alxames bi ñu indi seen bi préavis dañuy grève alxames boobu lañ jot devis bi entrepreneur bi def pour réparer piscine bi muy devis 67 millions pour réparer piscine bi foofu lañ toll mooy loolu ñu ne nag bi ñu réunion ñu ne ñu gis ñu conseil bi daal ni gisul benn problème pédagogique bu teree jàng am responsable kudd ni lépp lu war au niveau social pour jàng am am nañ ko respecté nañ ko muy restaurant muy néeg yi muy service médical conseil bi daal ne bu dee loolu ñii il faut ñu wax lañu dem jàngi conseil bi jël ay résolution daal ni cours yi danañ continuer di ko programme ku bëgg a jàngi nga jàngi danañ assurer sa sécurité beneen bi képp ku jàngiwul ñu xam ne da ngay boycotté ah danañ teg ay daan daan yoo xam ni mën naa egg ci ñuy wax direction des bourses ñu dagg sa bourse ci saa si ba ngay jàngeeti beneen bi nag conseil bi daal ni bu ñu toogee ba àllarba. fukk fan ak juróom-benn ci weeru décembre ba huit jot te jàng jàngiwuñu ah bu boobaa nag ecole bi danañ ko tëj ba jëmmi jamono ñu ñaan étudiants yëpp ku nekk nga ñibbi sa kër parce que comme ñu bàyyi njàngale mi tëj école bi ba jëmmi jamono ñu wax ku nekk mu ñibbi këram foofu nag lañ egg tey toll li tax ñu wax conseil bi dafa ne école bi dañu nekkoon ci année scolaire boo xam ne dafa métti woon ñu rattrapé lépp ban abat année scolaire normale ñu am ay problème mu retard quatre cinq semaines ci ouverture restaurant yi tàmbali wuñu mënuñu permettre problème yoo xam amul benn problème pédagogique amul benn problème social bu tere ñu jàngi école bi continuer ko bu dee loolu donc nañ tëj école bu jëmmi jamono évacuer étudiants yi lëggati si biir donc bu ñuy ñëwaat ñu xam ay yenn conditions la ñuy dellu si. waaw matuwaay yi matu matu matuwaay lenn la c'est-à-dire que euh, déjà bu ñu nee évacué nañu comité social maanaam euh, restaurant bi tëj na restaurant nañ ko néeg yi aussi demande nañ leen nañ leen génn nañ génn tranquillement fu ñu toll foofu lañ toll demande nañ tranquillement nañ évacué école bi parce que école bi moo leen woowoon pour jàng si école bi jàngaleetul tëj na léegi nañ nañ may fu ñu toll ah njo njort nañ danañ évacué mais jàpp leen daal lépp lu ñu war ci côté administration def nañ ko